mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlooti bu baax seen ànd ak télévision Futur Média alxames ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu àndaat ak yéen seen émission li ci penc mi tey nag euh, télévision Futur Média ci lëngoo ak association maire yu Sénégal AMS fas yéene waxtaanee wàllu décentralisation euh, tolluwaay li ak euh, lu jëm ci liggéeykat yu collectivité locale yi gox-goxaan yeeg yorin bi rawatina bi ñoom AMS association des maires du Sénégal di waajal seen premier congrès ordinaire li ko dalee ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi mars lay doon. ñu ngi fii ci plateau bi ak monsieur le maire bu Guédiawaye di président AMS Alioune Sall monsieur le maire ñu ngi lay nuyu rafetlu teewaay gi. jërëjëf Assane. ñu ngi également ak monsieur euh, Birame Owens Ndiaye moom conseil technique la ca ministère décentralisation sëñ Ndiaye maa ngi lay nuyu. sëñ bi maa ngi lay nuyu. ay euh, Aïssatou Gueye soxna Aïssatou Gueye moom euh, experte la ci wàllug finance ak fiscalité local n'est-ce soxna si ñu ngi lay ziar. maa ngi lay fay. maa ngi wax sama invité yi ne ku mayewul tey yow laay bàyyil kàddu gi ndax yaa dàqale tur ci plateau bi <laughs> du ma wax lu tax saydu Seydou Gueye moom conseil spécial bu chef de l'État maa ngi lay ziar bu baax Seydou Diouf. <laughs> jërëjëf jëf euh, monsieur le maire ñu tàmbali ak euh, congrès ordinaire bi ngeen di waajal d'abord solo gi ak euh, li ngeen ci taamoo waxtaanee lu jëm ci wàllu partenariat yu bees innovant ngir yokkute gu sax d'abord ndaje mi lan mooy solo gi maa ngi lay sant Assane ci invitation bi yàggoon naa bëgg ñëw ci émission bi mhm. waaye yu tey rek congrès des maires du Sénégal lu njëkk la mhm. bii mooy première édition bi Euh, li tax ñu wooyee ko congrès des maires mooy ne xew-xew boo xamante ne la dafa ëmb ay yeneen événement ci biir maanaam du benn événement rek ñetti événement la ñu boole euh, mu finalement nekk benn ñu wooyee ko congrès mhm. tur boobu nag dañ ko ko wooyee ngir gën a dooleel mbir mi gën ko jëmmal euh, ndax sunu ay statut nga xam ne mooy charte yi nga xam ne AMS ci lay jaar pour di fonctionner li mu prévoir mooy at bu jot dañu war a am assemblée générale waaye ñun bureau bu bees bi ñu xalaat ne bu fekkee dañoo nekk juróomi téeméeri maire ak juróom fukk ak juróom-ñaar war at bu nekk ñu daje ngir xool sunu association nu muy doxee am na solo de waaye dañu xam ne dajale ñu ñëpp ci benn dëkk fay hôtel ya daw beeg dikk ba xaalis boobu yëpp muy jar. Mhm. te saytu association bi baax na sax waaye defe naa ne loolu daal dafa yembul moo tax. ñu xalaat ne war nañ boole euh, yeneen activité yu am solo boole kook assemblée générale bi ndax ñun lépp lu ñu def dañu war a utiliser xaalis bi ñuy jot mhm. utiliser ko ba nga xam ne dafay am njëriñ looloo tax à part assemblée générale ñu organiser lu ñuy wooyee le salon des maires et du développement durable mhm. à part salon boobu ñu organiser tamit benn colloque international boo xam dafay boole ay boroomi xam-xam ci àdduna bi boole ay kuréel ci àdduna bi ñu xalaat ci lan mooy wàllu collectivité locale yi ci Euh, koom-koom gu bees goo xam ne yaakaar nañ ko jëlee surtout nag bi nga xam ne génne nañ euh, ci euh, accord bu mujj bi nga xam ne moom lañ def sur le climat à Paris. Mhm. donc loolu daal moo waral événement yu bëri yëpp ñu boole ko mu nekk benn ñu wooyee ko le congrès des maires du Sénégal. waaw ah, su ma su ma defee jàngat say kàddu dafa mel da ngeen gën a dëppale ak jamono mhm. doxinu maire ndax bu njëkkaan xëy na dañu leen woon fenn fi waaye jamono laaj na mhm. yeneen doxalin yu bees. waaw loolu nag évolution bu mag moo am bu yaatu. Euh, li ko waral lu njëkk mooy acte trois bi acte trois bi daf ñu joxaat ay sañ-sañ vraiment soññu ñu won ñu ne euh, dañu am euh, responsabilité bu rëy ci wàllu développement mm-hmm. leneen lu bees li mooy profil maanaam maire yi ban façon lañu dëgg la nit dana mën a nekk maire par expérience am waaye dañu gis ne maire yi bees yi léegi uh-huh. dafa am ay diplômé ñun am nañ ay médecin mm-hmm. am nañ ay inspecteur des impôts am nañ ay avocat am nañ façon métier bu nekk ba tax léegi maire bi même bu dul lenn sax xam-xamam ak expertise moo koy jox ay responsabilité ak ay ambition yu bees yoo xam ne loolu dafa am impact ci doxalinu association bi. ah très bien monsieur le maire sëñ Ndiaye ci ci wàllu doxalin woowee yow en tant que expert ci wàllu décentralisation yan ngëneel nga gis ci ndaje yu ni mel. Euh, maa lay gërëm euh, si sa invitation di nuyu. le président euh, Alioune Sall di nuyu ñu mbokkal plateau bi madame Aïssatou Gueye ak euh, Seydou Diouf euh, ndaje bu mel nii parce que décentralisation bu ma yàbb bu ma ne penc la parce que ay gox la te si gox yooyu ñi fay tase mooy ay acteurs ñu def suñu politique Sénégal politique décentralisation maanaam ñu jël ay ay sañ-sañ ak ay euh, ay responsabilité jox ko nit ñi man damay wax ne nit ñi la ñuy jox responsabilité mm-hmm. bi ñu leen joxee responsabilité ñu ne leen dangeen di fal ay nit yoo xam ne ñoo leen di waxal ñoo leen di teewal ngir faj soxla yi nga xam ne moom la am si biir gox yi mm-hmm. donc bu fekkee ne am nañu penc bu mel nii di waxtaanee lépp loo xam ne dafa jublu si politique boobu ni muy doxee Sénégal damay gis ne loolu am solo la lu am importance la surtout nag mu tasanteeg benn événement bu mag muy euh, le congrès des maires l'assemblée général ñu taftal si yeneen activités yu am importance maanaam colloque boo xam ne dafa jëm si lii li nga xam ne moo ëpp solo si décentralisation mooy financement mm-hmm. surtout financement innovant jublu si li nga xam ne moom la ñu tudde développement durable financement innovant yeneen yoon ngir wut wut xaalis yuy gunge projet yi am na yoon yu bari mhm. mais yeneen yoon yu bees la yoo xam ne dañu mhm. gis ne que àdduna bi dox na dox boo xam ne bi léegi il faut que ñu jéem a seet yeneen pexe yoo xam ne dinañu financer politique gu collectivité locale yi mhm. boole si maintenant ak salon bi mu wax vraiment maa ngi koy rafetlu te yaakaar naa ne si biir waxtaan bi nañu gën a xóotal. am nga yaakaar ni li ni yëf yi ba fii ak euh, xeetu maire yi nu am ni ko euh, monsieur maire de Guédiawaye waxee euh, dinañ egg ci mbébét yooyu yëpp rawatina jamono yoo xamante ni lii di njeexite politique daf ci laxasu léeg-léeg administration bi maire yi ak penc yu wuute yi naka la ñu mën def ba loolu lépp ñu ñu nekk au delà de tout ça ci ci gàttal lu ñu def ba nit ñi fàtte seen bopp fàtte seen fanu fare ci wàllu parti jiital liggéey askan bi Euh, lu lu lu am solo lu am solo trop ndax euh, ni ma ko waxee nit ñi la ñuy jox baat. Mm-hmm. nit ñi lañ jox baat ñii ay ndaw askan wi lañu donc li ñu war a surtout jiital mooy nan la ñu mën a fexe pour que ñu am développement bi nga xam ne moom la acte trois di di di woote. Mm-hmm. parce que acte trois politique de développement la. Mm-hmm. gis nañ ne ñu ngi doon euh, def effort yu bari li nga xam ne moo doon samp ay kuréel di di jox ay sañ-sañ maintenant léegi dañ si boole naka léegi sañ-sañ yooyu ñu leen jox dañu bëgg ngeen jublu maintenant li nga xam ne mooy yokk koom-koomu gox yi. Mm-hmm. loolu mooy li nga xam ne mooy changement bi ma gis bu ëpp importance léegi si décentralisation. te damay terminer foofu dafa mel ni léegi euh, course la boo xam ne dañuy joxe départ. ku dawalul sa bos bu baax da ngay nekk si ginnaaw ñi daxa dawal nag mooy ñi nga xam ne dinañu seet mhm. yan pexe ak nan la ñu ànd ak seen nit pour mën a faj soxla yi si biir gox yi. très du ñàkk xëy na pexe yi am na ci yu ñu jot a rëdd ci këyit dinaa ko laaj monsieur maire ndax duñu xaar ba jour ba ñu bëgg koo fent je que ni xëy na xalaat nañu yoon yoon yu bees yooyu danañ ko faram-fàcceel mbokk yi ànd ak ñun ci ci ci émission bi euh, madame Aïssatou Gueye junj nañ ko sànq ku ne mairie ne ay koppar ci suñu mairie yamunu xëy na euh, bu euh, géejawaay tolloowul ak bu dëkk beneen damay bañ a tooñ kenn mais am na ci maire yoo xam ni da nga dem yenn mairie yi nga xam ni kat dëkk bi wax dëgg yàlla dañ ko wutal rek waaye yeggagul fenn fi ci wàllu finance ak fiscalité d'abord yan xalaat nga gis ne moo mën a gën a yokk koom-koom bi yan yan yoon. ah xalaat yi de bari na maa lay gërëm balaa may egsi ci xalaat yooyu di la sant di la euh, gërëm surtout ci invitation bi. Mhm. di nuyu monsieur le président de l'AMS Aliou Sall. Euh, di nuyu sama càmmiñ. Euh, Seydou Guèye di nuyu Biram owet oh, defe naa ne plateau bi wax dëgg yàlla ñi fi toog euh, ñu am solo lañu. Mm-hmm. Euh, di sant ñëpp ñi nga xam ne daal booy nañ ma ci ndaxte euh, congrès bi dañ ma cee dugal te président Aliou Sall mi toog moo fexe ba ma bokk ci comité scientifique bi pour mën a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la invité. Mm-hmm. xool naka la ñuy mën a càmbare lépp loo xam ne jëm na ci wàllu financement. donc ci loolu nga ma doon laaj am na solo ndaxte collectivité locale yi moom dëgg la yemuñu loolu dëgg la. yamuñu fi boo xoolee Sénégal xool feneen nit yamuñu boo demoon tey ci dëkk yi nga xam ne dëkk mag ñi la nga xam ne wax dëgg yàlla développé nañu tamit collectivité locale yamuñu mm-hmm. waaye collectivité locale bu nekk rek euh, war na mën a yokk koom-koomam loolu ñun loolu la ñu gëm ci loolu la ñuy liggéey ci ay depuis plus de vingt ans di jàppale collectivité locale yi mm-hmm. di seet naka la ñuy mën a euh, gësamee alal bi ñu yor koom-koom bi ñu yor ba mën koo yokk ba mën a euh, euh, fexe ba askan bi nga xam ne moo leen jox euh, dogal bi ñu mën leen dimbali ba ñu egg ci fi ñu bëgg a egg maanaam fexe ba équipement yi de yi nga xam ne collectivité locale yi moom la ñu war a jagleel askan bi ñu mën koo def ndax loolu mooy wàllu collectivité local donc collectivité local man dama tàmm di wax ne amul benn collectivité locale bu pauvre xëy na dafa dañu dañu bokkul dañu yamul rek waaye képp koo xam ne collectivité locale nga ci sa biir ci suñ ko càmbaree suñ ko euh, gëstoo rek war nañu gis ci yow loo xam ne force la boo xam ne bu ñu ko yëngalee war na mën a yokk sa koom-koom. Mm-hmm. ci congrès bi nag euh, defe naa ne wax nañ financement innovant maanaam financement yi nga xam ne mooy yu bees yi nga xam ne war nañ ko jagleel collectivité locale yi ndaxte ñun ñu ngi liggéey toujours ci fiscalité locale maanaam li nga xam ne mooy am amu collectivité locale li ñu moomal seen bopp di seet naka la ñuy mën a fexe ba ñu yokk ka mm-hmm. te waxtu bu yàlla saa yi ñu liggéey ci daañu gis ne euh, bu defee ay pexe war na mën a yokk xam-xamam waaye loolu du doy foog ñu xoolaat nag fan la ñu mën a jëm pour fexe ba mm-hmm. collectivité locale yooyu. fiscalité bi l'impôt yi la ci askan bi société yi sancu ci seen seen i dëkk et ñu fexe recouvrer loolu lépp. waaw l'impôt l'impôt bi moom bare na ci bare na mm-hmm. euh, marché yi euh, soo leen seetloo chaque fois bu ñuy def répartition de compétence di jagleel collectivité local yi ay ay ay matukaay dañu mm-hmm. naan ah, ñun de bu ñu xoolee ci marché yi maanaam équipement marchand yi wala ci gare routière yi wala ci euh, économie locale yi war nañu fexe ba xool loo xam ne war na mën a suqali suñu koom-koom. Mm-hmm. impôt yi tamit bari na ci mais impôt yi mën nañu ne dañ ko bokk ak état bi ndax ñun ci état la ñu nekk. Mm-hmm. waaw bi mooy jël lu xam ne moom war na ko jagleel collectivité locale yi. Mm-hmm. delloo leen ko pour que ñu mën a. Euh, te état bi jotul ñu ne na na ko bàyyi ak ñoom ñenn ji surtout ñu néew doole yi wala état bi moom it <laughs> daa ni ñoom. am na ay système yoo xam ne aussi dafay permettre état bi dajale xaalis bi séddale collectivité locale système de péréquation yu permettre collectivités yi nga xam ne dañu néew doole mhm. ñu gën a yokk seen doole ñu ëpp doole ñu wàññi ko mhm. duñu seen doole parce que am nañu doole déjà donc euh, am na système boo xam ne état da koy mettre en place aussi pour mën a fexe ba képp mën cee am wàllam jërëjëf gi euh, Guèye euh, Seydou euh, Diouf ci ci wàllu ràññeetle aussi parce que askan wit ñoom it ci la ñu war a bokk cette appropriation quand même de la gestion de la cité nit ñi naka la ñuy def bañ gën leen ci dugal ràññeetle am ndax dafa mel ni su ma ko sañee wax Sénégal yi xàmmeewuñu luy liggéeyu mairie lan moo war état dañuy <laughs> waaw ñoom dañuy ñaxtoondoor eh, rek jëmee ci kilifa genn gi. Mm-hmm. d'abord ma lay gërëm bu baax di la sant ci invitation bi di nuyu président Alioune Euh, Birame Owens Aïssatou suma jigéen mhm. di di rafetlu aussi thème bi nga jël ndax ñun xamante nañ yàgg nañ ci terrain wu décentralisation mën nañ ne sax ay doomu décentralisation lañ mhm. euh, kon ma lay gërëm bu baax ci invitation bi di di di rafetlu aussi innovation bi nga xam ne président Aliou Sall indi na ko ci AMS ndax xam nga tey boo demee ci kuréel yi boot maire yi ci àdduna bi weesu nañ ñëw def assemblée général dem léegi boo gisee maire yi lu ñuy liggéey Afrique comme ailleurs dañuy def congrès mu nekk congrès bu thématique ñu am benn problème boo xam ne moo leen préoccupé ñu waxtaane ko maire yëpp ñëw yeneen maire jóge bitim réew ñu waxtaane ko pour dégg kàddu maire yi te li ñu def nii dafa ëmb ñaari mbir maanaam maanaam mbirum financement yu bees ndax financement moom dafa nekk problème bu sérieux ci suñu processus de décentralisation waaye pour atteindre objectif de développement durable te ñu ngi génn ci COP nga xam ne àdduna moo daje woon te bu ñuy wax maire kii gën a dund euh, changement climatique yi ak effet yu bon yi mu am c'est maire ndax tey bu géej feesee bay daanali kër nit ñi ba la ñuy wax état maire la ñuy wax mm-hmm. bu bu agriculture bi doxul ba la ñuy wax état maire la ñuy wax donc maires yi ils sont au cœur ci ci problème yooyu donc ñu jël initiative boobu man rafetlu naa ko trop Euh, ñaareel bi mooy lan mooy tey ñun Sénégal suñu suñu profilu maire dafa changé et puis suñu dafa ànd ak suñu processus centralisation ni muy renforcé woon xam nga bu njëkk ba maire notable la woon waaye tey askan wi dafa gën a yeewu di gën a jéem a ràññaatle même bu fekkee ne ràññaatle bi demeewul noonu mhm. dañuy gën a am ay exigences par rapport à leur maire ba tax na tey maire xam na ne boo deful résultat élection day ñëw. Mhm. te bu élection ñëwee askan wi dinañ gis dañuy xool bilan. mais dina baax aussi ñu xam li nga xam ni moo war maire ak li ko warul euh, pour ne pas même juger ko à la place d'un autre foofu laa foofu laa jëm foofu laa jëm mooy très souvent dinañ interpeller maire mhm. ci loo xam ne du prérogative am alul sax koppar yu pour doxale loolu parce que ah. loolu ci mbirum état la mhm. waaye loolu li ko indi mooy dañu nekk ci benn système de décentralisation boo xam ne tollaguñu aussi dans la perfection maanaam euh, xam nga collectivité locale tey am na sañ-sañu lépp lu impacté ci population yi mu dugal ci loxo moom la ñuy wax vocation générale de compétence mm-hmm. waaye xam nga vocation générale de compétence warul tax nag nit ñi soxla bu jóg ñu ne maire bi ba ko war a def mm-hmm. maire dafa am lu ko yoon dénk état am lu ko yoon dénk lii état yor ëpp ba pare alal ji état bi yor ko mm-hmm. maire yi nit ñi di leen xaar ci lépp te yoruñu koppar yi pour def ko naam sax ay jéego mu ngi am ci wàllu fiscalité ay jéego mu ngi am ci wàllu transfert de ressources yu jóge ci état parce que ñu ngi gis ne at mu jot li état bi di transféré mu ngi yokku waaye tey dañ jàpp ne maire yi aussi dañ leen xaar ci fépp et que jaadu na tey askan wi mën a ràññee parce que damay dégg souvent euh, askan yi ay population bu dara xewee ak lu mu mënti doona ah, ñoom ci seen maire yi la ñuy dem loolu dañ ciy sant yàlla sa à dire que boo nekkee acteur de décentralisation loolu da nga ciy sant yàlla loolu mooy. Mhm. de plus en plus nit ñi ñu ngi xaar ci seen ay municipalités ñu nekk de véritables actrices du développement. Mhm. loolu nekk nu lu baax parce que boo xoolee suñu processus de décentralisation ci Sénégal bu njëkk ba dañ ko wax maire ay notables lañu woon waaye seen compétence taxu ko woon demee noonu. te lépp lu ñu waroon def dañ doon dem ba ci état laaj autorisation pour def donc processus bi di avancé nit ñi di gën a bàyyi xel xanaa gisuloo tey ñi daawul nekk candidat ci maire yi xoolal tey cadre yi nga xam ne dañuy jóge ci terroir yu xaw a reculé ci biir Sénégal nekk ay cadre di liggéey Dakar waaye élection locale bu jotee ñoom dañu ne dañuy dem si seen gox pour nekk fa maire pour ñu samp leen maire hmm. d'ailleurs nekk na une des raisons yoo xam ne rafetlu nañ sax ci réforme institutionnelle yi ni ñu nangoo hmm. principe bu candidature indépendante yi à toutes les élections parce hmm. que Mm. aspiration populaire la parce que mm. principe de participation citoyenne moom moo lal décentralisation donc mm-hmm. c'est vrai que li ñu ko waxee maire yi li ñuy xaar ci ñoom bëri na lool. Mhm. waaye aussi il faut ñu nangu ne maire yi mënuñu lépp. dëgg la ndax d' abord ci wàllu yoon amuñu jumtukaay yëpp. Mhm. waaye ci wàllu koppar it. Mhm. mu amuñu budget yi ci ah, war pour répondre à tous les objectifs. ñoom it ñu bàyyi diggé yi léeg ndax bu ñuy campagne ñoom Ali ñoom Ali nag yooyu léeg-léeg ñu xaw a euh, waaw dugal ci yoo xam ni bu ñu faloo ba toog nag daal lay soog wax ne ah lii bokkul ci compétence yi ñu ma dénk. Euh, monsieur le maire Alioune Sall assemblée générale la wax mais am naa yaakaar di nga fa yóbbaale dara ci table ji bilan Mm-hmm. AMS d' abord lan ngeen mën a taxaw tey jii ci lu ñu mën a jëmmal nii def ngeen ko laata ndaje ma 22 mars bi. waaw ñun ñu ngi nar a def at. Mm-hmm. suñ bureau bu bees bi. Euh, at nag xat na pour vraiment def euh, bilan bu yaatu pour wane ay résultats yu concret mm-hmm. euh, bi ñuy yëkkati suñu loxo pour wax ne dañu bëgg a nekk président AMS dañu siiwaloon ay xalaat yu ñu am ngir yeesal AMS yeesal tamit façon ba muy liggéeyee bokkoon na ci. Euh, ñu ne AMS dëgg la association boo xam ne la dafay représenter ay intérêt ay maire loolu moom dañ ko mos di jouer dañ ko war a continuer di jouer dëgg la AMS dafa amoon rôle bu mu doon jouer au niveau international di fa représenter maire yi jouer nañ ko bu baax dañu war a continuer di ko jouer waaye AMS benn aspect manqué woon na ko mooy doon woon réaliser ay projet boppam c'est-à-dire que doon nañ jot rek ay financement pour yenn mm-hmm. temps ay formation wala ñu defaral ñu benn document waaye ñun ci suñu bopp nekk yoon ay acteurs yoo xam ne mën nañ gunge collectivité locale yi ci seen développement mm-hmm. te dañuy yaakaar ne association bi dafa war a nekk aussi benn espace de mutualisation parce que am nañu fa am xam-xam yoo xam ne collectivité locale soxla nañ ko xëy na tamit association mun na dem fu nga xam ne yenn collectivité mënuñ fa yegg mën nañ tam am ci suñu administration expertise boo xamante ni yenn collectivité locale soxla nañ ko ngir mën a am ay plan de développement wala préparer ay documents yu ñu mën a war a mun euh, woon ay partenaires moo tax fonction opérateur de projet boobu dañ ko taxawaloon loolu nag ni ko jéem jëmmalee mooy signé nañ ay convention yu bëri ak ay kuréel euh, bëgguma def publicité mm-hmm. waaye ak ay kuréel yoo xam ne vraiment dañuy jokkoo ak ñun di liggéey ci ay projets parfois des projet très concrets même des mm-hmm. projet agricoles comme projet élevage am na benn boo xam ne du publicité mm-hmm. mooy fexe euh, programme Sénégal bi nga xam ne dañoo bëgg a fexe tabaski bu jotee ku nekk mun a am xaram ñun maires yi dañu engagé wu à travers l'AMS mm-hmm. à aider certaines locale locales à développer l'élevage familial euh, yeneen aspect yi mooy actuellement signé nañ benn convention bu mag ak benn organisme pour mun a créer des centre de service xam nga fii Ndakaaru boo fi toogee di wax waxu extrait naissance aw ma kayit bi nit ñi dañ naan duñ la gëm waaye am na mairie yu nga xam ne ci biir Sénégal pour nga am extrait naissance da ngay rang une semaine wala un mois ndax imprimé ba sax doo ko am. Mhm. léegi ñu xalaat ne war ay centre de service ci yenn gox yi nga xam ne dañu xaw a sori wala wàllu connexion internet dañu xaw a faible. Mhm. ngir AMS dimbalee leen ko. centre yooyu nag dana leen mën a may tamit ñu am foo xam ne dañ fay daje. Mhm. ak yeneen i projet yoo xam vraiment. Mhm. assemblée générale dina nekk euh, occasion pour que ñu présenter ko sunu collègue maire mais yéen a ngi sóoraale bu baax ñàkk ñàkk tolloo doole gi ci léeg-léeg sax mu xaw a fës loola boo jëlee maire yi Ndakaaru moom lay commencé wala Géejawaay wala yenn gox-goxaan yi ni ma ko waxee est-ce que yéen a xalaat pour ak ak yamale xaw a am. maanaam euh, genre discrimination positiv léeg-léeg man moom euh, personnellement. Mm. Euh, bi may bëgg a nekk président AMS ak ba ma ko nekkee gannaaw nga ma ko nekkee suma discours li ci ëpp solo mooy li ñu woowee équité territoriale maanaam gox yi dañu war a yem chance dañ leen war a jox ay jumtukaay mhm. ndax tànnuñu seen bopp nguur gi moom moo dessiné wax ne fii war na am gox fii war na am fii am na gox waaye boo seetloo ci ni ñuy rëddee euh, frontière gox yi euh, dafay am gox yoo xam ne comme Guédiawaye du ñu am chance ci wàllu koom-koom. Géejawaay tey jii ville dortoir la amul fa usine amul marché yu mag yu tax ñuy wax marché. ba tax na du am recette. ndax xam ne doomu Géejawaay dañuy yeew dem Ndakaaru liggéey dem Rufisque liggéey dem Pikine liggéey léegi dëkk yooyu danañ ci am koom-koom ci liggéey doomu Géejawaay waaye léegi buñ naree yemale nag koom-koom googu ci dëkk gañ koy defee rek. Mhm. mbir mi du sotti. Géejawaay lay wax waaye loolu dafa xaw a général. Mhm. ba tax na ñun dañu xalaat ne. rôle suñu association mooy nekk tamit promouvoir l'équité territoriale mm. mais à différents à à travers euh, différentes mesures mm. y compris ah, en euh, quoi ngeen ko par exemple ci fiscalité ci mm-hmm. fiscalité on pense que fiscalité mooy meilleur moyen pour assurer euh, équité territoriale maanaam alal bi nga xam ne réew mi ñoo ko moom mm-hmm. ñu fexe ko seddalee nu nga xam ne ñi gën a néew doole mm-hmm. ak ñi gën a soxla dana ñu am ok duñu wax rek ñi gën a néew doole. Mm-hmm. parce que boo waxee ñi gën a néew doole nga jël ton tonni lépp bàyyi waa Ndakaaru. alors que Ndakaaru moo ëpp ay nit am na fi ñu néew doole teg feneen loolu itam dafay doy waar. c'est important jërëjëf euh, sëñ Ndiaye ci wàllu ci wàllu euh, li ñu dëgmal ne ay projet am na solo waaye li fi ne ne ay jafe-jafe bien sûr bu ñu waxee ci ak yi ak jéego yi ba noppi collectivité locale yi dégg nga fi fan yi yëglu gi ay grève file wàllu salaire pour jot yi jafe yi mu am naka la ñu mën a def ba indi ci saafara déjà c'est vrai que baax na di moderniser ko méngoog jamono waaye ci ñi nga xamante ni ñoom askan wi ngeen bëgg a liggéeyal mais ñi leen di liggéeyal ñoom muy les travailleurs des collectivités locales ñoom it ñu ngeeg seen i jafe-jafe neen nes lañ mën a def ba euh, ca ci loo xamante ni vraiment du rek ay diggéey ak trois décentralisation mais de façon concrète ñu faj au moins jafe-jafe yooyu wàllu wàllu du ma ko sañoo sax survie ndax ku mm-hmm. def naa du tal liggéeyal keneen waaw jërëjëf euh, si def nañu benn évaluation première année décentralisation bi euh, bi ñuy defee évaluation bi càmbar ko problème yi ñuy wax euh, am na si maanaam ay problème de trésorerie si collectivité locale yu bari mhm. surtout si commune wu euh, yi nekk si biir département Dakar Guédiawaye Pikine ak <clears throat> lu waral loolu mooy que bi nga xamee ne dañu def acte trois dañu supprimer région yi ba pare ñu am personnel boo xam ne dañ ko redéployer ñaari option mu mënoon am ñu ne personnel bi nga xam ne dañu tas seen région ñu licencier leen walla ñu reprendre leen le gouvernement le président a pris l'option de dire il y aura pas de licenciement on les redéploie léegi fekk na communes yooyu amuñu woon euh, tooguñu woon sax ba am xaalis ba mën leen fay état bi moo jël si si si coobere boppam fay tout ce personnel la mm-hmm. donc loolu damay jàpp ne c'est des mesures ponctuelles à court terme le gouvernement bi jël na pour la gestion deux mille deux mille quinze fay ñëpp cas yi nga xam ne signalé woon nañ ko yëpp en fin décembre fay nañ leen xëy na am na ay kaa yu des mais li nga xam ne signalé nañ ko mu wóor ne que lii c'est des cas de non paiement de salaire tout ça le gouvernement a fait de subvention pour ñu régulariser ko pour 2016 aussi euh, def nañu ay euh, ay ay recommandations pour que aussi ñu mën a jël seen salaire en attendant ñuy trouver une solution la solution mooy euh, dañu bëgg si deuxième phase bi ñu xoolaat li nga xam ne mooy politique de financement de collectivités locale et nag loolu dafay laal yu bari ci jëm si fiscalité locale bi dafay euh, laal aussi li nga xam ne moom la xaalis bi gouvernement di jox mhm. collectivités locales yi ak euh, bor yi ñu mën a demle bi walla ay financement innovant donc ci biir loolu laa yaakaar ne collectivité locale yi dinañ am ay ressources mais nag ressources yooyu dafay ànd il faut que ñu waxante dëgg. avec une politique de management des ressources humaines. parce que loolu ñooy ànd da ngay am xaalis mais aussi nga seet naan ngeen gérer parce que bu fekkee da am personnel mënoo ko fay di recruter aussi. lool du mën a sotti. da ngay bañ clientélisme politique ni ñu leen koy tuumale souvent ne mairie yi moom daa bari ay clientélisme politique. waaw loolu je crois que. bu bu ñu xool dañu war a dañu war a parce que politique de recensement am na fonction publique locale. Mhm. te fonction publique locale boobu dafa am ay règles. Mhm. bu ñu recruter dañuy def un appel public sélectionné ñi nga xam ne moom la ñu parce que dañuy am ay organigrammes. proposé nañu pour mettre en place des organigrammes. Mhm. boo xam ne chaque collectivité locale dafay am organigramme et dañu respecter. la dotation de cet organigramme par des effectifs yoo xam ne dañ leen di sélectionner. Mm-hmm. donc ci seen njàngat de façon globale est-ce que vraiment ñu baal ma mais liggéeykat yi collectivité locale Sénégal ils sont assez performants war da nga naan c'est un personnel bu laaj quand même euh, ñu daal di def nag euh, recyclage. Euh, je je crois que ce personnel mën naa jàpp ne que on n'a pas encore le ressources humaines pour nos collectivités locales. Mmh. parce que c'est un héritage xarañ des na voilà xarañ bi des na c'est un mhm. bi des na productivité bi des na donc loolu moo ne il faut mu am une politique de ressources humaines mhm. Mhm. pour valoriser les ressources humaines loolu war <laughs> parce que bu Alioune amee financement innovant ci amul ñoo xam ne dañu productif it daf ñuy delluwaat ginnaaw rek ah il faut quand ñuy waxante ñu ñuy waxante aussi dëgg li ne non c'est c'est c'est toutes les fonctions publiques de façon générale et même les fonctions publiques africaines on a besoin de compétences qualité. Ouais. et ça ce sont des objectifs ko qu faut se fixer. merci merci sëñ ci wàllu modernisation bi wàllu xaalis boo mun a am boo amul ñu xereñ ñu ko ñu ñu ñu ñu daal di ful mbir ay yoon yoon tam doo doo développé. loolu am na solo trop ndax ñun bu ñu laajee sax souvent naan ñu nañ def diagnostic financier. Mhm. maanaam xool collectivité locale bi lan mooy euh, richesse am mën-mënam ak naka la ñu mën a fexe ba euh, euh, koom-koomam yokku. Mhm. balaa ñu koo def dañuy def diagnostic institutionnel ba pare. xool ndax euh, bu ñu ko defee bu ñu xaymaa ba xam collectivité locale lan mooy potentiel mm-hmm. est-ce que ñi nga xam ne ñoo ëmb liggéey bi wàllu administration est-ce que mën nañ attan liggéey boobu. Mm-hmm. dispositif yi ñuy mettre en place yi ngeen di proposer est-ce que loolu mën nañ ko liggéey mën nañ ko mën nañ ko yanu.

Mhm. ak nu ñu gën a soree nag waaw euh, toog euh, di liggéey ak maire yi di jàppale population yi ak partenaires yi aussi euh, mhm. joué nañ ci rôle bu am solo parce que formation bee renforcement de capacité bi mhm. defe naa benn pan boo xam ne la vraiment partenaire dañ ko ngankoon ba fexe ba collectivité locale depuis une dizaine d'années ñuy renforcer seen capacité donc mën nañ yaakaar ni daal vraiment am na avenir ci côté boobu am na am na solo Seydou Seydou Diouf ci même au delà des collectivités fonction publique Sénégal liggéeykat waaw mais laaj na ko parce que xam nga tey boo xoolee même au niveau de la fonction publique d'État mhm. li nga xam ne moom la réforme budgétaire bi ñu adopté UEMOA indi mooy de plus en plus suñu réew yi ñu ngi def ay efforts de recouvrement de ressources mhm. waaye loolu mooy notion gestion axée sur les résultat culture de la performance cest à que culture de la performance moom la ñu installé gul ci suñu logique gu fonction publique je parle même de la fonction publique d'État waxaguma sax bu collectivité locale mais fonction publique d'État mhm. amaguñu culture de la performance culture de la performance nag dafa laaj parce que objectif bi lan la mooy essayer dërëm bu ñu dugal fenn rek ñu jéem a xool au maximum lan lañ ci war a mën a tirer pour mu nekk njëriñu askan wi donc mhm. xam nga débat la bu actuel parce que réforme budgétaire bi ñu adopté ñun Sénégal te UEMOA inspiré ko inspiré ko loolu daf ñu war a yóbbu foofu boo ñëwee ci collectivité locale yi aussi jafe-jafe bi mu ngi ci jafe-jafe bi mooy d'abord taux d'encadrement bi boo jëlee ci maire yi maanaam personnel bi nga xam ne am nañ fa niveau bac plus dafa néew lool. te boo xoolee collectivité locale personnel bi day bëri mais boo xoolee taux d'encadrement bi au Sénégal ci collectivité locale yu bëri doo dépasser cinq pour cent du personnel autrement di li ñuy gën a jël ci personnel mu ngi jëm ci ay femmes de charge mu ngi jëm ci ay personnel aide-soignant wala même bu dul aide-soignant personnel de nettoiement d'entretien et cetera donc te personnel boobu aussi dañu am ay droits dañu am ay acquis donc jàpp naa ne tey li ëpp solo ci suñu politique de décentralisation te Birame wax na ko léegi mooy entrée en vigueur fonction publique locale. Mm-hmm. foofu débat lay doon. et bu boobaa aussi il faut que état bi accompagner collectivités locale yi ak partenaires sociaux yi pour que nit ñi mën a waxtaan parce que am na benn situation bu am tey mais quelquefois aussi bu ñu nee dañu war a jëm élection dans un an. dañuy xool niveau de recrutement yi dafay exploser bu ñu la falaatul kii lay succédé. moom ngay bàyyi nga indil ko fa problème bu rëy boo xam ne. après moom du am solution parce que yow ba ngay recruter. Mhm. da nga doon def du recrutement politique. Mhm. et je pense que loolu. et tey am nañ chance su am ay maires yoo xam ne de plus en plus ñoom dañu am des objectifs de développement ñooñu ñu mën a am reconduire les mêmes pratiques. Mhm. bien que ñoom ñëpp c'est des hommes politique waaye nag waruñu reconduire les mêmes pratiques parce que lu ci bëri tey ci situation bi ñu doon déplorer ci année 2015 loolu moo ko indi ay explosion de recrutement en 2014 et en 2013 ba année bi nga a trois mois des élections am na ay maires yoo xam ne dañ doon recruter waaw te yow sa alal yokkuwul mhm. te ñu fàtte ne li décentralisation évolué xam nga avant maire bu waan recruter day defar décision décision bi day dem ministère de l'intérieur ak liste ñu ñu war a recruter yëpp ñu def contrôle approuvé ngay doog a mën a def recrutement waaye depuis décentralisation dooleel maire yi et loolu da nga koy dañ koy saluer il faut pas revenir sur ça. Mhm. lu baax la léegi maire yi bu ñu joxee preuve ne ci seen budget rek ubbi nañ crédit yi pour couvrir masse bi ñu bàyyi leen ñu def seen recrutement loolu foofu la contrôle bi porté. Mhm. donc loolu war nañ ko mën a waat et entrer en vigueur fonction publique locale dina génne benn statut ak benn cadre. pour wax ne ci genre emploi yi lii ngeen fu mën a def waru leen ko mën a dépasser mhm. il faut ngeen am minimum d'emploi euh, yooyu yëpp il faut que mu nekk loo xam ne. organisation syndicale yi. Mhm. AMS. état war nañ ci waxtaan pour vraiment. parce que loo gis dafa dafa dafa laaj rationalité. Euh, monsieur le maire Alioune Sall bu dee amuloo looy yokk ci wàll woowu ñu ñëw ci wàllu euh, coopération décentralisée ak euh, surtout internationale gi ndax gis naa ni seen ndaje mi sóoraale ngeen dalal ci ñoo xamante ni ci association internationale des maires ci la ñu waa Union européenne également <coughs> foofu tam lan lañ ca mën a gagné ci ci wàllu collectivité locale d' accord soo mayee rek bu ndaw. ci. matière ressources humaines yi li ñu wax fii dëgg la ay c'est des faits euh, notamment exagération bi am ci wàllu recrutement souvent personnel boo xam ne politique moo ko gën a lal que ay soxla waaye loolu nag en général phénomène urbain la boo ko seetloo en zone rurale les commune n'ont même pas assez de ressources humaines da dem ci commune boo xam ñaari nit ñoo fay salarié wala sax benn nit mhm. pourquoi parce que amuñu sax ressource buñ ko fayee donc loolu aussi bu ma le fait que yenn collectivité locale yi di jël ay nit ñu ëpp ñu amul compétence yañ leen di doyee bu mu nëbb le fait que il y a absence de personnel et de ressources humaines dans la plupart de no commune loolu tam dafa am solo euh, li nga wax nii muy euh, coopération décentralisée bitim réew international gi waaw AMS dañu am tradition internationale. Euh, suñu association vraiment ñi ko mos a jiite yëpp ak euh, ñi mos a nekk leader yi dañu mos am un rôle international ci instance yi nga xam ne ñoom ñooy boole les maires au niveau international donc rôle boobu ñun dañ koy continuer assumer loolu moo waral ñu ngi teew bu baax ci ay kuréel yu mel nii CCT conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA wala kuréel yu mel ni AIMF association internationale des maires francophones ak yeneen lënkaloo boobu moo Sénégal bu xewlee meeru Sénégal bu ñu xewlee ñeneen ñi affaire bi da leen di intéressé loo tax suñu congrès bi biñ ko xamalee euh, te ñun ñu yàgg bokk ci yeneen activité AMF mhm. ñu gis ne meeru Sénégal yi am na benn leadership boo xam ne ñu ngeeg moom ñu ne war nañ mun a ñëw lënkaloog ñun ci suñu congrès ñoom it profitoo ci ànd ak ñun organiser lu mel ni le colloque sur les financements innovants mhm. euh, donc euh, dafa am solo ñuy sukkandiku ci réew mi ak li fi nekk mais dafa am solo aussi ñuy sukkandiku ci ñeneen yi li ñuy def mm-hmm. ak surtout sukkandiku aussi ci essence boo xam ne dina ñu mën a may ñu ñu daal expertise yi ñu mun ko weccee mm-hmm. bu bu njëkkaan ñi nga xamante ni xëy na ñoo ëpp wërsëg laa koy tuddee wala pexey ubbi ko bitim réew ñu daan ëppi réalisation seen i gox-goxaan mm-hmm. euh, man gëmuma ne de décentralisée mun na ko dëkk ah, ah. Euh, parce que même boo ko seetloo en réalité Euh, dëkk yi gën a am coopération décentralisée bu rëyee ba rëy benn école lañ ci am euh, suñ ko amee ren balaa ñu koy am dinañ toogaat ñaar ba ñetti at. Mhm. coopération décentralisée mënul développer dëkk. ci gàttal daal nañ compter suñu bopp. nañu compter suñu bopp moo gën a wóor. du tere nag coopération décentralisée dina tax ñu échange expérience. Mhm. dina tax yenn saa yenn problème ñu régler ko waaye gëm naa ne warul nekk. lu nga xam ne priorité la pour vraiment développer suñu gox yi. Mhm. loolu daal man mooy suma position. la lan moo ci war état bi donc comme demee na ni ci yenn gox yi amul ressource naturelle amul dara. Mhm. lan moo ci war état bi. xam nga sànq ñu ngi wax naan maire yi dañu am benn compétence générale en matière de développement euh, acte trois bi aussi boo ko seetloo loolu la moo nekkoon fexe ba nga xam ne liggéeyu nguur gi lu ci yenn yu ci am solo dañ koy jël jox ko gox yi mi newut ne. Euh, communes yi am nañ xaalis wala amuñ xaalis mbir mi mooy fan la ñuy yóbbu koom-koom bi pour liggéey yenn liggéey yi ma jox la exemple inondation mhm. tey fu inondé maire ba la ñuy xalaat mhm. kenn du xalaat ministre bi yor assainissement mhm. wala ministre bi nga xam moo yor affaire inondation urbanisme ak yooyu pourtant de euh, maire yi amuñ compétence benn ci wàllu xeex inondation ñaareel bi amuñ koom-koom bi maanaam budget bi nga xam ne moom la Sénégal di utiliser pour xeex inondation ci ministère ba la nekk nekkul ci commune yi. Mhm. waaye léegi lan moo tere ñu jël alal boobu nga xam ne dañ koy xeexee inondation dénk ko maire bu ñu ko defoon. Mhm. di nga gis ne maire yi euh, danañ am compétence ba waaye danañ am ressources yi kon souvent du question que communes yi dañoo pauvre waaye dañ leen transféré wul ressources yi nga xam ne. Euh, mhm. dafa dëppoo ak soxla nit ñi. Euh, nit ñi nga xam ne ñoom la ñuy euh, ñoom lañu ñoom la ñu. liggéeyal liggéeyal. dañ leen dañ leen a transféré sas yi ca àndul ak koppar. Euh, sas yu bëri transféré nañ ko commune yi àndul ak koppar. Mhm. waaye dafa am sas yoo xam ne sas wa ñëwul koppar gi ñëwul. te mhm. askan wi moom. maire bi la xam xamul ministre xamul keneen. Mhm. donc dañuy am solo bu booy tabax classe wax yàlla bu tabax classe ci. Euh, bani Israël. Hmm. dëkk bu ñëwee bani Israël. <laughs> bëgg fa tabax salle de classe bëgg a xaar ndogal gi jege ndakaaru loolu dafay doy waar. Hmm. surtout nag bu tombee ñu def appel doo am entreprise bu ndakaaru bu ko gagné. Hmm. balaa muy dem bay implanté wu foofu. mbir ma day finalement sax gën a cher. donc yu mel noonu daal. dañu bëgg nit ñi xoolaat ko bu baax. monsieur Ndiaye sa ministère est-ce que noppi na pour yàbbi ci wàllu aslëf euh, ni ko euh, maire yi sàkkoo état bi de façon générale est-ce que noppi na ngir ci réforme yooyu mu waral acte trois ak deuxième phase bi notamment parce que phase bu njëkk bi moom ku ne dégg nga coow li mu jur je pense que ni heureusement bi état bi amee oyofu taxaw nag xayma ngir deuxième phase bi est-ce que noppi ngeen ngir yu ci mel noonu ngeen baaxee ko ñi nga xam ne ñooy élus locaux yi. waaw léegi d'abord si si première phase bi bon ni ma ko gisee am nañu si ay ay acquis yu am importance. parce mm-hmm. que. Euh, dañu ne dañuy am cadre bu bees centralisation kooku bu ma yeboo ma ne taxaw na mm-hmm. te li nga xam ne duñ ko souvent fësal mooy que euh, am na ay collectivités locales yu bees yu sampu commencé seen liggéey te liggéeyu collectivité locale mooy nga voter sa budget exécuter ko pour jéem a répondre à la demande de tes de ses concitoyens. te mm-hmm. loolu gis nañ ne quand même si première année bi. am na collectivité locale yëpp taxaw nañu war nañ si bi ñu ngi commencé liggéey. maintenant y a des difficultés comme comme ni nga koy waxee. Euh, si li nga xam ne moom mooy euh, taxawaayu ministère mais bari na difficulté yi damay bañ nga xaw koo néewal nii. non néewalu ma ko néewalu ma ko. Ah, ah. coow li bari woon na trop. néewalu ma ko du ma expert ci décentralisation waaye coow li bari na. waaw coow coow li bari na. c'est hmm. c'est vrai. coow li bari drame social ni ma koy waxee ñi fayeekuwul ak. vraiment borom kër yoo xam ni jànnaxee na ci mbedd mi di ñaxtu ñu leen di dóori grenade ak <laughs> non c'est vrai non se vrai ils ont barré la route là boori VDN bi ay kilifa xam nga vraiment boo bëggee réformer nag indi fi loolu aussi da ngay nangu ne nag sa réforme yi nag am na lu baaxul nga daal dina koy teela a wàccoog moom ah mais bien sûr ah. non loolu nangu nañ ko mhm. moo tax ñu non seulement am na des mesures d'appui mais euh, on est dans dans une volonté ferme pour mhm. régler ces problèmes mhm. léegi pour euh, li li li président wax sànq mu jëm si li nga xam ne mooy transfert de compétence ñun ministère dañu gëm ne loi bi moo tëral ne compétence bu ñu joxee am mu ànd ak ay charge dañ ko war a compenser kooku ministère tëralu ko loi assemblée nationale moo ko wax loi nag buñ ko dañ koy respecter est-ce que ñu ngi koy ñu ngi koy exécuter ñu ngi koy non euh, am na lu bari lu des mhm. ça il faut reconnaître am na lu bari lu des léegi si proposition yi ñuy def en tout cas proposé nañu pour que gouvernement bi euh, euh, def évaluation du coût mhm. de compétences de charges des compétences transférées mhm. bu ñu defee l'estimation maintenant ñu compenser financièrement ces ces compétences mhm. euh, dolli si aussi li ñuy wax ne dañu bëgg territorialiser les politiques publiques loolu mooy li président wax état bi day rôlam day changer concevoir suivre évaluer ba pare di exécuter léegi dañu wax pour l'exécution des politiques publiques au niveau du territoire des territoires il faut que ñu am une approche territoriale de développement contractualisée avec les collectivités locales pour réaliser les actions de développement mmh. loolu ay proposition loo xam ne ñu ngi koy def ci phase 2 bi mmh. euh, premier ministre déclaré na d'ailleurs Guédiawaye mmh. dina am conseil interministériel boo xam ne nañ dem ñu ñu ñu seet proposition yooyu après jël ay mesures. Hmm. appliquer ko pour jéem a rectifier donc les difficultés qu'on a eues pendant la première phase mais aussi mettre une deuxième phase boo xam ne l'accent ça va être les mécanismes nouveaux de financement de collectivités locales. Mmh. Euh, boole nañ ci liggéeykat yi parce que bu ngeen convoqué njiit yi rek bàyyi liggéeykat yi seen i syndicat également du ñàkk am nañ ci xalaat ñoom mooy c'est les mesures dafa am mmh. lu ñu tuddee mesures urgentes. Mmh. dans les mesures urgentes mooy le règlement de la des loolu mooy la première mesure urgente boo xam ne déjà commencé na et puis maintenant dinañu acter. je pense au niveau du conseil interprofessionnel une solution pour que. Euh, ñu étaler ko à court moyen et long terme pour régler définitivement le problème. nekkuñ si réew mu am koom-koom bu ñuy demee mais li gënoon de mooy ñu wut ay solutions structurantes yoo xam ne duñ fi nekk rek di xayma salaire yi ci ay weer waaye. non parce que salaire yi. pour man loolu acte trois taxul mu jóg. Mm-hmm. li acte trois euh, li ko tax a jóg c' est le développement. Mm-hmm. c' est le développement des territoires développement de territoires c' est un collectivité locale seen mission ñu dugal si. l'emploi, la création de richesses, le développement économique des territoires. Ça, c'est la première des, des, missions et des orientations de l'acte 3. Deuxième, mooy améliorer l'offre de service maanaam li jëm si santé li jëm si éducation li jëm si loisir culture ñu euh, taxaw pour mën a améliorer ces service aux populations mm-hmm. et si si biir loolu ça veut dire que il faut que gouvernement bi euh, évoluer dans l'accroissement des ressources financières des collectivités locales. Mmh. et en utilisant tous les modes de financement possibles. Mhm. amul benn mode de financement tous les modes de financement possibles. très bien et je pense que am nañu yaakaar ne. yaatal assiette bi très bien jërëjëf Ndiaye. madame Guèye ku dégg ñuy wax waxi l'impôt yooyu ci yenn gox yi danga nga daan xëy na dina ko xaw a xeeb nga foog ne ay l'impôt juuti yi rek mën na mën na mën na indi financement bi localité yi laaj. moom amul fenn foo xam ne rek l'impôt ak juuti war na mën a indi financement bi collectivité locale laaj mm-hmm. waxuma dëkk yi nga xam ne mooy suñu dëkk yi nga xam ne ñoo gën a néew doole mm-hmm. euh, dëkk yu mag yi sax l'impôt kese warul nul tax si ñu am financement waaye nag euh, balaa ngay euh, tàllal sa loxo nga nga jéem a xool li nga moom mm-hmm. noo koy gësamee ba mu mat ba mu mën a takku nga mën cee liggéey doog tàllal sa loxo ndax partenaires yi fi ñu toll nii balaa ñu laa jox xaalis il faut que ñu natt tamit sa xam noo toll te loolu am na solo. mooy li président doon wax léegi fi ñu toll nii defe naa AMS déjà euh, ëdd na yoon bi wane na fi ñu toll nii il faut que ñu dem ci biir territoire yi wàcc ci territoire yi pour xool naka la ñu mën a créer solidarité bu permettre. commune yi nga xam ne dañu xaw a néew doole ñu mën leen jàppale mhm. mooy mutualisation bi ñu doon wax sànq ndaxte bu ñu xoolee ci dëkk yu mag yi sax fi ñu toll nii ay fision la ñuy wax fusion de commune mhm. intercommunalité mais ñun dañu gis ne commune dañu xaw a sakkan sakkanaay bi nag indi nag ay commune yu am doole ak commune yoo xam ne dañu néew doole lool lool lool. Mhm. ñu ne nag ci biir plan stratégique bi AMS yu tëgg nii parce que loolu tamit lu am solo la ndax ci biir congrès bi ubbi nañ ci benn euh, séquence boo xam ne AMS dafay présenter plan stratégique am fii ak 2020 pour wane ne nii fii lañ mooy jëmukaay bi. ak fexe ba nga xamee nag ci biir loolu nag ñu fexe ba AMS daal di favoriser lëkkaloo bi war a am ci collectivité locale yi gën a néew doole. même ñëpp doole sax parce que boo xoolee fii euh, si Dakar intercommunalité moo tax ñu yanu yenn compétence yi comme électri électrification. Mmh. comme ordre euh, assainissement bi président doon wax léegi. Euh, enlèvement des ordures ménagères. donc loolu maanaam solution am na il faut que lëkkaloo bi am il faut que état bi aussi ànd ak ñoom ci lëkkaloo boobu ndaxte dem nañ ba am na ay projet yu ne. ñoom ay partenaires bu ñu sago bu doon seen sago tey dañuy fexe ba financer ñi nga xam ne dañu bëgg a ànd lëkkaloo pour mën a jëm ci communa communalisation boo xam ne mhm. dafa leen permettre ñu porter ay projets mhm. des projet de territoire su loolu amee ñoom taxaw nañu pour financer mhm. donc financement fu nekk la mën a jóge waaye nag euh, mbooloo bi il mu am solidarité bi il mu am ci commune bi. très bien dafa mel ni man man bëggoon naa quand même de façon précise xaw ma monsieur le maire lay doon wala yow ci dañ may dégg rek financement innovant mais bon euh, joxaguñ ma ci xalaat idée vraiment précise par exemple bu may xalaat boori Tamba dañ ne xëy nañ fexe ba la fay tukkee ci wurus geeg yeneen ñu ñu ñu mu mën a jariñ gox ba lan qu'est-ce que vous par ce mot innovation. waaw financement innovant mooy bu yees rek. Mhm. Euh, bu yees nag moom mun na varier. mun na nekk lépp. ndax euh, lu tax mu nekk lu bees mooy collectivité locale yi amuñu grande tradition di leb kon nag bu ñu fexee ba collectivité locale mën a leb. Hmm. ngir développer ay programme projet nekk na loo xam ne yoon bu bees la. mën na nekk aussi euh, capter yenn façon dons yi nga xam walla financement yu nekkul ay bor. yoo xam ne hmm. am na ci àdduna bi te ba fii ñu toll état yi lañ ko jagleel waaye. communes yi amuñ ci woon accès. léegi nag ak euh, COP 21 bi ak yi xew ci àdduna bi wàllu climat ñu bëri xalaat nañ ne collectivité locales yi gox yi war nañ ñoom it mën a bénéficier vraiment ci financement innovant yi même partenariat public privé. am seet ab privé boo xam ne dafa am euh, intérêt ci ñëw investir ci benn commune loolu tamit c'est quelque chose d'innovant daal maanaam bëri na. Euh, boroom xam-xam yi saytu nañ ko. dana nekk occasion sunu congrès bi ñu xool possibilité yi am yépp Euh, ci wàllu financement yu bees. Mhm. façon yu bees euh, xool tamit ban naka la ñuy mën a capacité communes yi pour que ñu mun a am accès ci ci financement yooyu. très bien Seydou Diouf euh, mbébét gi ambition bi fooguloo ni dafa xaw a dafa xaw a bari lool bien que aayul am ambition mais bu ñu ko méngaleeg am am bi Sénégal. <laughs> est-ce que su ma ko sañee wax monsieur le président ak nguur gi palaat bi daal ak li li plate bi def mariner gi dafa am wuute mariner bee ëpp palaat bi. waaw non cest man li ma jàpp mooy Assane état bi dafa am taxawaay ci wàllu collectivité local ndax tey boo xoolee état li muy def ci lu jëm ci compétence collectivité local am na si quand même effort yi ñuy def surtout at yi ñu génn parce que tey boo jëlee par exemple lu mel ni éclairage public jël lu mel ni gestion des ordures ménagères rien que gestion des ordures ménagères état mooy def treize milliards par an. Mm-hmm. te collectivité locale yi ñooy percevoir taxe d'enlèvement des ordures ménagères mais terewul. particulièrement fii pendant plusieurs années Kadakar état mooy joxe dix milliards yeneen ñetti milliards yi ci yeneen région yi. Mhm. boo xoolee fonds bi jëm ci éclairage public également la même chose donc état def na waaye dafa des te dañu war a xoolaat naka la ñuy naka la ñuy jëlee ci alalu état bi renforcer capacité collectivité locale moo tax man souvent débat bi du ma ko yemale rek ci fiscalité locale parce que boo ko yemalee ci fiscalité locale mën nga am texte yu baax. am l'impôt yu bëri loo aligné ne collectivité locale bi sa jël mais pour collectivité locale jël il faut que mu am activité fu amul activité boo fa indee ay l'impôt yu bëri it du ñu am lu ñu recouvrer hmm. donc autant dañu war a defaraat collectivité locale euh, fiscalité locale moderniser loolu ñoom ay satu ñoom def nañ ci liggéey bu bu bu am solo mais autant aussi état bi transfert mu jëm ci collectivité locale dafa war a yokku te leneen li may wax mooy souvent di nga gis collectivité locale bu am benn potentiel fiscal mais état ci boppam moo ko koy xañ parce que moom mooy jël ay mesures de dégrévement ou d'exonération fiscale ci ressources yoo xam ne collectivité locale bi moo ko moom mm-hmm. tey boo jëlee patente am na état mën na signer en dehors de la collectivité locale convention exonéré ko yenn impôt yoo xam ne collectivité locale bi la ko waroon fay boo demee Tëngéej jéggale ko baale ko <laughs> tey exonération bi laa bëgg tey tey waaw eh, lool la. waaw <laughs> mooy mooy jéggal nit ki li mu war a fay. ko ko. Mhm. signé convention boo demee Tëngéej tey soo ko Sococim. Mhm. du publicité. <laughs> war a fay deux milliards quatre cent ville de Rufisque mais convention bi usine bi am ak état tax na ba fii ak ñaar fukki at un milliard trois cent la koy fay. te collectivité locale bi. Hmm. amul sañ-sañu remettre en cause loolu. Hmm. te état bi du ko ko compenser. xam nga kon loolu day indi jafe-jafe. te loolu daal na yeneen collectivité locale pour pour pour bàyyi euh, bi dund. mais war na ko compenser. voilà état hmm. bi moom moo am responsabilité politique de développement économique. war na mën a jàppale entreprise. waaye foofu bu ko defee. jaadu na it mu compenser collectivité locale bi. loolu nekk na loo xam ne jéego la yoo xam ne. AMS war nañ ci mun a. war nañ ci mën a liggéey ci cadre évolution texte yi nga xam ne ñoom ñooy moom ñooy concerné leneen li mooy financement innovant am na yeneen lu parce que dañuy wax collectivité locale démembrement état nga mais xam nga état par exemple bu fekkee ne dafa def dépense entreprise bi defal ko exécution travaux dafay fay travaux dafay fay TVA état bi cest à état day génne xaalis fay ko waaye ci li mu ko fay day fayaat état bi TVA. Hmm. collectivité locale démembrement wu état la mais collectivité locale yi bu ñu defee travaux entreprise buy fay TVA bi état la koy fay alors que mënoon nañ imaginer loolu am na yeneen réew yu ko am ñu ne kat euh, pour inciter financement investissement mënoon nañ imaginer ne mairie Guédiawaye at mi lim ci def ci travaux d'investissement lim ciy fay ci TVA bu ñu demee ba at mi ci topp wala at mi ci toppaat dañ ko koy delloo pour mu financer waat investissement xam nga loolu forme de financement la mhm. c'est pas un financement direct waaye dañuy dañ koy rétrocéder TVA bi mu payal mais du tere dafa nar a nekk te bu boobaa da nga naan da ngay promouvoir le développement des investissements donc pour wax ne daal mhm. ci wàllu réflexion je pense que Sénégal am nañ ci réflexion yu bëri ci wàllu décentralisation gis nga acte 3 bi biñ koy biñ ciy liggéey dañoo wax naan évaluer wuñ mais gis nga acte 3 bi mu ngi jógee évaluation mu ngi jógee ci assise 2007 2008 jamono bi nga xamee ne ministre d'état Ousmane Masseck Ndiaye moo fi nekkoon ministre de la décentralisation ñëpp fi daje woon ci Dakar yu réfléchir ba génne donc Sénégal du réflexion yi moo manqué maintenant mise en œuvre la état mhm. il faut pas se tromper gis nga décentralisation processus continu la yaa ngi wax léegi bi ngay interroger biram di ko wax ne acte 3 bi au début dafa bëri problème mhm. il faut ñu nangu Sénégal ne début bi day jur jafe-jafe surtout nag lu mel ni ci décentralisation nga xam ne maire yi dañuy bugg élus locaux dañuy bëgg ñu yokkal leen seen capacité waaye toujours état central day am tendance di xëcc pour téye donc période yu mel noonu faw mu am ay jafe-jafe ay ajustement moo tax évaluation bi am solo parce que def nañ at évaluer nañ dañuy corriger dañuy avancer waat donc réew yi nga xam ne seen décentralisation tey toll na fenn fi c'est des processus qui ont deux cents ans mm-hmm. mais ñun dañu bugg def réforme ren mu aboutir ci résultat ren sans mu jur difficulté loolu nag mënul nekk mm-hmm. surtout mais xëy bu ñu gën a yaatal waxtaan yi boole ci ñëpp jafe-jafe yi mën nañ ko wàññi mais mais loolu aussi ajasan il faut il faut aussi le dire xam nga boole ci ñëpp ça dépend parce que kuréel bi doon liggéey ci acte man yàlla def na bokkoon naa ci mm-hmm. maire yaa ngi ci woon à travers leurs associations mm-hmm. les présidents de région étaient dedans les syndicats des travailleurs Euh, kii moo leen représenté woon euh, kii Ndiaye Sey Sidya Ndiaye mu ngi toog mu ngi bokkoon ci comité de pilotage bi. Mhm. c'est-à-dire que kuréel gi mooy nanga nga tuddee impliqué ñëpp parce que boo jëlee kuréel yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci mbir yi impliqué wu ci mbir yi nga boole leen ci comité bi piloté processus bi. mais ñooñu bu ñu génnee foofu te man gis naa contribution AMS bi ñuy bind code bi contribution AMS am na lu jub bëri foofu lañ ko jëlee dugal ko ci code bu bees bi. Mhm. et puis évaluation bi defoon nañ ko defati ko defati ko AMS boo fa demee tey li ñu saytu ci wàllu naka la ñu war a évoluer la décentralisation nekk nañ def nañ ay réflexions yu bëri et ça ne date pas que mhm. même avant lui il y a eu des moment aussi bon état dafay dafa bugg avancer ci benn réforme cadre de partage yi pour discuter ci réforme ba dans les régions mais xam nga jafe-jafe bi lan la woon. Mhm. jafe-jafe bi bi ñu amoon ci ci départ bi mooy. pour ñu am ay collectivités locales yu taxaw il fallait que ñu viable parce que boo buggee nag def décentralisation bu am portée économique il faut que territoire bi nga koy def mu nekk territoire bu viable. Mhm. Sénégal décentralisation institutionnelle la ñu amoon. ambition acte trois mooy def décentralisation de développement économique mais loolu ça suppose territoire yu viable mais boo xoolee découpage yu ñu defoon avant. Mhm. ba mu jur ay gox ak ay gox-goxaan damay tàmm di wax gaañ ne leen yomb na nga signer décret. en 30 secondes da ngay signer décret créer collectivité local waaye lu muy jur ci jafe-jafe. pour nga corriger ko mën na la dikkal c'est trois ans wala quatre ans. parce que ku ci am droit rek. doo bëggati ñu remettre en cause. ce territoire or am na territoire yoo xam ne wax fa dëgg yàlla. Mm-hmm. viable lu ñu ci réew mi pour mën a nekk de collectivités. jarul woon def collectivité euh, yeneen ci wàllu réflexion monsieur Ndiaye mooy euh, réforme yi nga xam ne euh, référendum bi ëmbaale na ko xam naa ni sëñ Aliou yaakaar naa ne ñëw ci ndax mu ngi woon ci moom la ñuy wax ci campagne bi xam naa mooy dernière partie nañ ci daanaka daanaka mais ci réforme yi nga xam ne président mu ngi koy euh, mu ngi koy euh, proposé askan wi ngir ñu wote ko 20 euh, mars 2016 wàllu collectivité locale yaa ngi ci ba ci création au conseil am na ñu ne Sénat beneen rekkati la nga foog ni jafe-jafe yi nu nekkee mënuñu woon gën a xalaat leneen lu may di créer yeneen structure waaw nga may ma tontu ci question volonté bi ndax ëppul mën-mën bi. rajo mhm. Assane xam nga bu fekkee ne da nga am presque tey jii euh, ñu ngi nekk en deux mille seize deux mille seize presque après cinquante ans d' ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la am suñu gox yi maanaam ay éclairage ay xale yu war a jàng jànguñu ay problème mu santé mais loolu dafa laaj une vraiment une une vraie ambition et puis vraiment une croyance ferme que ces problèmes-là doit on doit les régler dans un crois que loolu mooy ambition aussi de toute politique publique d'ailleurs mhm. waxuma sax politique de politique publique parce que politique publique bu la bu la bu la bu la gën a euh, taxaw gën a euh, gën a baax moom mooy moom lay jural yokkute askan donc il faut que mu nekk une politique ambitieuse volontariste mmh. mais aussi qu'on aussi à cette politique Je crois que c'est ça un peu les objectifs. Mmh. Maintenant, on a donné des responsabilités qui me semblent importantes pour les maires, pour les présidents de département, pour leur dire que maintenant, dans vos responsabilités, le développement équipe, euh, économique mmh. am na place bu mag mu si joué. Mmh. donc loolu mooy. l' ambition mais ne pas faire quand même. maintenant maintenant maintenant ma ñëw ma <laughs> ñëw si moyens yi ma ñëw si moyens yi parce que ma ñëw si moyens yi parce que mmh. souvent. dañuy def benn critique boo xam ne souvent du ànd ak évaluation surtout la fiscalité est-ce que fiscalité bañ koo defee ba léegi lañ si waroon jëli jëli nañ ko si. man damay wax déet parce que un système fiscal mooy que bu ñu bu ñu recenser rôle bi dafa war a complet dañu war a recenser ñëpp bu rôle bi complet ñu ko ñëpp tey ji wóoru ma nag pour cent yi. Mhm. recenser nañ leen. et 50 pour cent yi ñuy recensé wóoru mu ndax ñu ngi fayeeku nañu lépp donc sur ce plan dafa am ay lu mu lu mu sooxe mm-hmm. donc na sa resque sax xamaguñu suñu potentiel fiscal fan la toll am nañu si actuellement si communes yi mm-hmm. presque plus de 40 taxes plus de 40 taxes yoo xam ne bon am na si yoo xam ne mën na dox am na si yoo xam ne doxul mais am na si ñett yoo xam ne comme lu foncier ak patente bi publicité et cetera waroon na nekk di taxes yoo xam ne pour beaucoup de collectivités laal na leen financer. Mhm. bokkul nag ak li li li Seydou wax ne ñu am une politique de transfert et de péréquation et de solidarité au niveau du pays. Mhm. donc pour. Euh, rapidement rek ñu jeexale ci réforme yi waaw si si si réforme yi. li ci concerne collectivités locales yi. li concerne d' abord le haut conseil des collectivités locales. parce que système décentralisation euh, li nga xam ne mooy association des élus mais aussi benn plateforme bala benn cadre boo xam ne les élus dañ fay tase pour que lépp loo xam ne dañ ko yëkkati mu jëm si décentralisation ñu mën a wax seen xalaat je pense que loolu dafa bokk si processus décentralisation et dafa bokk aussi si euh, ay institutions yoo xam ne dinañu permettre ñu jël en compte euh, les préoccupations des élus. parce que c'est une chambre des élus. maintenant mën nañ ko élargir à d'autres acteurs. du nekk du nekk chambre bu ñëwati gën a diisal mbir yi une chambre budgétivore. bon parce que. parce que ñu ngi wax problème bu jafe-jafe. bay bay wuti financement innovant bu ñu fi tegatee yeneen charge yi. bon parce que pour man aussi <laughs> démocratie y a un coût y a un coût la démocratie y a un coût la démocratie mais je voudrais vraiment foofu ah. mooy yokk si bi ñaari point sur décentralisation ah. ak déconcentration parce que si réforme yi la bokk ah. et loolu li muy li muy li muy tekki mooy euh, bu fekkee ne teg nañu un système de déconcentration mooy li ñu doon wax sànq la territorialisation des politiques publiques cest à que administration centrale dafay changer rôle. dans ses relations avec ñi nga xam ne ñoo koy représenter ci terrain bi. ku nekk ñu ne yow yaa war a toog li nga xam ne mooy la conception des politiques yaa war a toog sur le suivi le contrôle et l'évaluation maintenant ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain mën a nekk des interlocuteurs des collectivités locales bu ñu ko tegee si un système quel que soit le régime qui va venir après à moins que mu dem consulter le peuple par l'Assemblée ou par le référendum pour le changer et c'est la même chose aussi pour la décentralisation. parce que décentralisation aussi dañ ko war a fexe ba teg ko base boo xam ne ça va survivre a tous les régimes politiques. c'est un système boo xam ne dañuy partager les pouvoirs et les ressources. pour man loolu laay séentu parce que dañuy poser de des principes. Mhm. dafa war a am ay lois organiques dafa war am ay décrets yoo xam ne dañuy ñëw. ñu fixer un cadre boo xam ne c'est ça va être un état vraiment décentralisé. c'est c'est important jërëjëf jërëjëf Ndiaye euh, monsieur le maire Alioune Sall ci ci wàllu woowu yow en tant que maire euh, ci euh, poñ yooyu ñeel réforme yi moom lan ngay wax da nga da nga ci ànd ba. ah non non man dama ci ànd totalement. Hmm. benn bi mooy xam nga dañu dafa bokk ci réforme bi le fait que ñu wax ci constitution bi que dañuy le principe gouvernance local ak déconcentration. Mm-hmm. dañ koy bind ci constitution bi. Euh, actuellement xel xalaatul dëkk boo amul maire. Mm-hmm. d'ailleurs dëkk mooy maire. waaye xam nga maire décret la rek. Mm-hmm. président mën na yeew rek ne man daal euh, maire Guédiawaye daal dëppowul ak suma xel rek dindi ko. yebal fa délégation ah. même bu dul délégation. Mm. nit ñi dañuy fàtte ne ville de Guédiawaye décret ko créé. président mun na yow rek na ville de Guédiawaye amatul. Mhm. préfet bi doxalal. waaye yooyu dafa fekk euh, lépp lu jëm ci wàllu organisation collectivité local euh, réglementation daf ci am doole alors que dafa war a nekk des principes constitutionnels. Mhm. ñoo gëm ne euh, wàllu gox yeeg goxaat yi ak nañuy doxee réew bi noonu la war a doxe du loo xamante ni daf lay neex rek nga changé ko wala leneen donc loolu de crois que moo gën a am importance. ci changement yi nga xam ne ñu ngi koy indi ci constitution bi. Mhm. beneen bi mooy euh, euh, conseil bi ñu war a taxawal. mu nekk espace boo xam ne waxtaanu kaay la dialogue teritorial yéen ñëpp yéen a ngi euh, suivre coow yi bés bu nekk nga dégg ambulants yi ñu ngi xuloo tel maire maire bi mu ngi xuloog tel ministre di xëccoo place bu ñuy defar. Mhm. alors am conseil bu mel noonu dina tax problème yu bari en amont balaa muy yegg si sax ñu xalaat ci naka lañ koy régler. loolu dafa am solo ci réew. dañu war a dépasser nag Sénégal débat yu nga xam ne toujours loo bëgg a créer rek ñu ne non koom-koom bi antanu ko te nit ñi du ñu saytu sax xool ban coût la. Mhm. Euh, créer benn structure buy jar deux milliards wala trois milliards wala quatre xamuma ci réew moo xam ne budget am trois mille milliards la. souvent nit ñi du ñu def comparaison boobu daal. Mhm. waaye xam nga dafa yomb. Mhm. surtout ci kuy opposé wu nag. Mhm. Euh, nga yëkkati argument boobu ne non xaalis boobu mënoon na tabax ñaari hôpitaux wala ñeenti opito waaye dafa nekk loo xam ne dafa ànd ak démocratie te faaw moom. xëy na dañuy ñàkk aussi ñu daal di leen fa tegalati nan ko fi tàmmee woon rek clientélisme politique boobu ñu waxoon ci maire yi jël say nit dugal fa. est-ce que boobaa dinañ fa dugal ñi war est-ce que dinañ doon ñoo ne am na lu njariñ loo gis rek organisation la. buñ ko taxawalee xam naa ay loi ay ay décret dina décider naka lañ ko war a defee waaye man jàpp naa ne conseil boobu bu amee dina ci am wàllu wu rëy woo xam ne élection lay jaar ndax ña fay dem ah, benn collège électoral moo leen di fal ban collège électoral lay doon nag man xaw ma ko. Mhm. est-ce que dañuy boole tous les élus ko ñu fal seeni conseil wala est-ce que dañuy dajale maire yeeg président département yi. ñu mhm. tànn seen biir. loolu euh, vraiment dugguñ ci détails yooyu waaye xel jàpp na ne. ña fay nekk li ci ëpp solo dafa nekk nit ñoo xam ne élection moo leen di tànn. très bien balaa may jox ñeneen yi surtout soxna si Guèye nga xam ne xëy na moom di yëngu ci politique gi. Mm-hmm. Euh, monsieur le maire fitna bi violence bi vraiment de part et d'autre ci diggante oui ak non. Mm-hmm. xanaa da ngeen ñun Sénégalais yi dangeen am yéen leneen lu ngeen gis au delà du référendum bu nu gisul ñun. man nag damaa xaw a jaaxle euh, dama xaw a am aussi benn chance man campagne électorale bu ma ci xasee ba dugg. ngeen baal ma du ma déglu rajo duma seetaan télé duma ma lire journal. damay sëgg suma campagne rek. moo tax man guddi ba guddi lay dégg ne ñu ne dëkk sàngam am na violence ak yooyu. a ah, ñun de Géejawaay à part yu ndaw ndawaan. Mhm. maanaam cortège buy romb. Euh, cortège non moom souvent nuñ koy attaqué parce que du am solo sax <laughs> waaye cortège wii di romb <laughs> eh, am benn waa noom bu yëkkati t-shirt ne non fii non la. Mm. yooyu dafa bokk ci campagne. Mm. mais nag ñu jël violence. Mm. ci campagne électorale. loolu la Ablaye Wade doon wax Macky Sall de. romb na ma fee rek mais ba ba mu ba mu daal di ko ci xabal. mbaa non bi duñ leen def noonu. Ah, non bi moom amul fenn fu mu ñu mën a jaar. <laughs> non bi moom mais Guédiawaye amagul xeex mais am na benn genre yóbbante xeer sa diggante ak Balla Gaye 2 bon. Euh, Balla suma xarit la ñoo nekkoon léegi <laughs> euh, ànd ak président di euh, jàppale wuy bi Balla wuy lay voté. Hmm. ah déedéet déet Balla néew. non non nga baal ma déet monsieur maire non man maa la ko wax. Ah. Balla wuy lay voté. te ah. boo suivre média yi di nga gis déclaration. damay ragal demande suba rek am. déedéet du am <laughs> ah, du am. ok du am wuy lay voté. Uh-huh. ba pare du lu bette. parce que dafa yàgg ànd ak président la république ci yu bëri. Mm-hmm. ñu ci ñu ko ci sant di ko gërëm. xam nga nag campagne du ñàkk yenn mhm. interprétation yi am waaye su ma diggante ak Balla Gaye jàmm dong moo ci <laughs> jërëjëf mu nekkoon ak ñun monsieur le maire Guédiawaye alin Sall xam naa rapidement en quelques rek sëñ Ndiaye madame Guèye ci wàllu violence bi lan ngay wax sa càmmiñ yi <laughs> vraiment parce que développement la ñuy wax àddina ni mu tëddee vraiment jongante bi bi gën a wóor mooy ci wàllu xalaat quoi vraiment ay xeer ak yàq liñ fi jotoon am ca bu ñuy yàq oto xam ngeen ni du oto président oto bus la ñoo ci rang ñooy buuxante tataay ah xanaa dal rek man daal li may mën ñaan rek ñëpp Sénégal. Mm-hmm. Euh, mooy ñu dal ndax fi ñu toll nii egg nañ foo xam ne liggéey rek moom mooy ma tax mooy soxali réew mi. te wax dëggu yàlla euh, li ma mën a wax tam te li ma xam mooy collectivité locale yi foofu la mooy jaarukaay yi pour ñu développer dëkk bi. Mm-hmm. donc euh, maire yi fi nekk dañ leen fal ñi leen fal defe naa ne ñooy ñoo fi nekk tamit xëy na. Mm-hmm. am jafe-jafe. jafe-jafe yi nag warul fexe ba nit ki romb li nga xam ne moom mooy wareefam. ba violence da daal li ñuy may ñaan rek mooy ñëpp dal mhm. ba mbir mi jeex ñu delluwaat ci liggéey bi parce que léegi ci des bareetul am na solo yow am am nga firnde ni euh, développement mu ngi jaar ci ci ci localité yi mais nit ñu aussi il faut ñu gën a jox fulla euh, ndombay maire mhm. saat su ma ko waxee Sénégal foog na ni nekk ministre rek mooy mooy liggéey mhm. wala ñu fal la maire nga cumuler nekk ministre fii ba fa ba fa mairie ba nga xam ne yow sa dëkk weer ba weer nga fay dem loolu tam j'en profite pour demander ñu wàññi ko sax Sénégal xale yi ñàkk liggéey loolu bokk na ci de benn nit takk juróomi ndombay tànk loolu am na solo loolu li ngay wax ni am na solo loolu ndaxte cumul yi yenn saa yi mooy indi sax euh, le fait que maire yi duñu xam sax parfois lu xew ki seen dëkk yi. Mm-hmm. waaye en même temps boo seetloo euh, contrairement aussi idées reçues maanaam dañu nañu foog ne que nit ñi xamuñu seen wareef ci biir collectivité locale te xamuñu rôle lu maire. mais boo demee ci gox-goxaan yi nag ngay xam ne ñooñu xam nañu rôle maire ndaxte da nga gis ne ñoom ñooy takku sax di jàppale maire di liggéey ak ñoom mhm. euh, partenaire yi fi ñu toll nii lu ci ëpp sax bu ñuy dimbali dañuy dimbali institution bi commune bi waaye dañu ne dañuy seet tamit ci société civile bi ñan lañu mën a fexe ba dugal leen ci liggéeyu maire bi mhm. te ñu bari dañuy takku ci biir gox goxaan yi nag laa gën a wax mhm. bon ci biir ville yi nag moo gën a jafe ndaxte bon xam nga ne ak euh, exode rural bi ville dafa xaw a dafa xaw a lig maanaam population yi dafa am lu ñuy laaj laaj bi dafa bare te maire yi lu ñu am am doole wax dëgg yàlla mënuñu résoudre problème yi. defe naa tout à président wax na ko léegi bu ñu xoolee ci ville yi. ko ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir gox goxaan yi mhm. doole yi duñu benn waaye ñi nekk ci gox goxaan ñoo gën a daal mhm. ndaxte euh, maanaam do bokk nañ ci liggéey bi mhm. boole nañ leen ci dañ cee bokkal seen bopp sax te ñu nekk ci ville bi en général souvent dañuy am ay problème pour mën a lëkkaloog maire ndax ndaxte mbir mee diis waaye damay yokk waa gën a gën a gën a gën a insister ci loolu mm-hmm. suñu dëkk yi ak ni mu tëddee suñu buggee développe leen je mm-hmm. pense que loolu defe naa gouvernement bi xam na ko léegi jàpp na ko ab trois ci loolu la jublu mooy ci territoire yi la ñuy yéeg la ñuy ci di yéeg waaye jóge ci état bi di wàcc d'ailleurs état bi yàgg nañ faa jógee wàcc <laughs> après indépendance ba tey Seydou damay damay interpeller directement le politicien <laughs> ci wàllu violence bi ak référendum bi doonte yow ci camp waaw nga nga nga bokk ma fàttali waa déet ne du vraiment woon débat politique maa ko ci sërëxaale ndax wàllu décentralisation la ñu la ñu digaale woon ak AMS ah mais bon <laughs> waaw bokk ci camp bi wóor nga waaw moom dafa neex. bon li nga xam ne daal moom laa ci mën a wax. mooy violence moom suñu démocratie war na weesu loolu ñu ci interpeller acteurs yëpp. débat bi ni mu bindoo fii li soo doon wax gloire au pays où on parle. Mhm. moo am Sénégal waaye nag il faut pas qu'on parle trop nañu liggéey. ku nekk am nga sa gëm-gëm am nga sa gis-gis défendre ko le 20 mars ku ci nekk dem voter. lundi 21 ñi ñi dem liggéeyi. Mhm. Euh, li nga xam ne moo ci nekk nag mooy ci au conseil des collectivités territoriales parce que moo nekk ci biir réforme bi d' accord naa li Aïssatou wax léegi mooy décentralisation Sénégal HSN. Mhm. mu ngi gën a effectifer en milieu rural. parce que gis nga même participation citoyenne yaa ngi koy gisee en milieu rural mooy en milieu urbain loolu parenthèse mais pour jeexal ci mbir mi. au mhm. conseil des collectivités territoriales man du ma nangu ñu ne. dafa nar a juraat xaalis dañuy jaay dañuy dépenser de l'argent deux milliards trois milliards oui mais tey bu fekkee da nga bëgg avancer ci sa décentralisation mais il faut nga am institution boo xam ne mhm. fële élus locaux yi di tey seen baat mhm. ñu war leen di leen mën a consulter en amon ci yenn politique publique yi ñu ciy joxe seen xalaat parce que si seen i territoire lañ koy appliquer ñoom aussi ñu am possibilité ci benn institution de la République pour mën di xalaat di xool lan la ñu war a mën a def pour que décentralisation gën a jëm kanam te man jàpp naa ne au conseil des collectivités territoriales dina liggéey ak état dina liggéey ak assemblée nationale parce que la fay génn ci ci ci si seen seen autosaisine war nañ mun lëkkaloo ak assemblée pour ñu transformer ko quelquefois même en proposition de loi donc du nekk institution boo xam ne dafay nekk une institution de plus mmh. Sénégal loo fi teg rek ñu ne ça va être une institution de plus mais boo amee processus de décentralisation. bu am solo tey gis nga ne réew am sena état bi loi bu muy projet de loi wala proposition de loi bu impacté. ci collectivité locale dañ la fa yóbbu. pour nga saytu ko. donc de démocratie am na coût. Mhm. nañ leen ko nangu du tax mu budgétivore nit ñi fa nekk ay responsable lañ waaye dina tax processus de décentralisation au moins que ñu dégg baatu élus ko yi. Mhm. ci politique publique yi état bi. di mettre en jërëjëf Diouf sëñ Ndiaye ci wàllu violence bi référendum bi sa baat bu mujj. waaw sama baat bu mujj mooy euh, société euh, violence dafa baaxul si benn société. Mhm. baaxul si benn société waxatu ba laag nag si li nga xam ne mooy le jeu démocratique c'est une libre expression des citoyens mën nañ ko def dans le calme dans la paix dans la sérénité vraiment ñun am na ñu bàkk am nañu réputation boo xam ne war waruñu ko yàq. Mhm. on a tout le temps fait des élections et dans la paix et dans le calme et la sérénité. ak ñaari alternance ñaari alternance vraiment démocratique. et mhm. vraiment je souhaite vraiment que ça se passe dans les meilleures conditions possibles et dans la paix sans la violence. jërëjëf monsieur le maire du ma mbokk yi ci laajuma la Abdou Diouf mooy parrain bi. <laughs> moom daal fu ngeen yëkkatee rek Abdou Diouf. centre international Abdou waaw dafa dafa daje waaye daje bu neex la nag parce que ci centre ba lañ koy defee d'ailleurs congrès bi centre Abdou Diouf lañ koy organiser mais euh, boo seetloo sunu gala de la décentralisation bu mujj ñu ngi ko tudde woon président mu Niasse ok mu amoon succès lool euh, dañu indi innovation bu bees mooy bu ñu amee xew bu am solo nañ ko tuddee nit ku am solo pour que la mu liggéey ci wàllu décentralisation ñu profité ci feeñal ko 96 moom moo def réforme régionalisation indi na lu bëri am matière de décentralisation. Mhm. moo tax dafay am solo période yu mel nii euh, ñuy waxaat ci acte trois de la décentralisation ñu indiwaat image am indiwaat histoire am indiwaat lépp. Mhm. pour vraiment ràññee bu baax contribution bu mu def en matière de décentralisation ci réewum Sénégal. très bien doon na baax ñu xam lu waral ñu dara jaare ko. waaw loolu kon loolu defoon da da ko faan ni ko ñenn ñu tuumaale monsieur le président. waaw du <laughs> du ñàkk nag yooyu yëpp ci la bokk daal waaye bañ koy tànn i tamit. <laughs> Uh-huh. mën naa wax ne unanimité. Uh-huh. bureau ba bañ ko proposé. unanimement uh-huh. euh, de tous les bords politiques ñëpp ñoo ne choix boobu choix bu baax la. kon nag defe naa ne loolu. war nañ ko mën a défendre. jërëjëf monsieur le maire ñu ngi lay gërëm di la sant gërëm bu baax monsieur Birame Owens Ndiaye euh, moom conseil technique la ci ministère décentralisation soxna Aïssatou Gueye euh, di spécialiste ci wàllu finance ak fiscalité locale Seydou Diouf également politicien waaye spécialiste ci wàllu décentralisation di leen gërëm mbokk yi euh, di ñaanal ñëpp fanaanu jàmm.